waaw man maa ngi tudd Abdou Karim dëkk Italie Pescara Abruzzo. soxna si maa ngi lay nuyu di la ziar vraiment di la féliciter ci vraiment man Italie laa nekk je la là depuis le 16 janvier. di sant président de la république ci décision yi nga xam ne jël na ko ci instant bi fi réew mi toll nii parce que boo demee tey Italie wala nga dem Espagne wala nga dem France dangay gis situation ya fa nekk tey jii bu ñu la waxee Italie ñi ngi fay huit corps yoo xamante ni ñi ngi bëgg mu ñëw looloon ñu ngi koy lancé président de la république pour mu bàyyi ci xel aide bii mu waxit nañ da koy def Sénégal de l'extérieur yi ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax président nga gën a soutenir le Sénégal de l'extérieur parce que instant bi sonn nañ surtout au niveau de l'Italie tey ña nga xam dañ fa nekkoon doon ay góor góorlu tey boo demee ñi ngi ci biir kër yi jigéen ñi nga xam ne dañ fa nekkoon di def li ñuy wax euh, dem ci borom ci tubaab yi di leen jàppale ci biir kër yi instant bi génnuñu defuñu dara kon ñuy wax président rek décision bi mu jël 1000 milliards yi mu génnee 50 milliards yi mu génne ba ko def ci aide élémentaire euh, ci daare bi ñi ngi koy féliciter vraiment di ko xamal que ni nag li Sénégalais yi doon xaar ci moom rek tey gis nañ ko ci muy jël ay décision ferme di ñaan nag ministre de l'intérieur ak ministre les forces des armées décision bi président jël nañ ko ci accompagner bu baax a baax a baax ndax tey jii ku fi tawat rek da ngay dem ci médecin mu seet la seet sa yaram kon bu ñu demee ba président de la république am fulaak fayda ca tey boo xoolee palais de la république da ngay gis opposition bi yëpp a nga fa mu commencé ci sa Seck Khalifa Sall Malick Gakou ak Sonko ak euh, Issa Sall ñoom ñëpp nga foon tey kon day wan ni Sénégal tey benn adversaire rek la ñu am benn ennemi la ñu am muy corona bi nu ñuy fexe ba du faagaagal suñu réew mi. loolu nag bu ko bëggee def institution bi état bi teg messin yi di ko joxe nañ ko respecté loolu la ñuy wax mais ñi ngi ñaan bu baax président de la république mu gën a jeex les Sénégalais de l'extérieur parce que na communauté boo xamante ne dinañ dugal 1200 milliards ba 1300 milliards. ca euh, douane du ko dugal impayé domaine du ko dugal kon ñi ngi koy ñaanal rek président lii mu jël ci réew mi ci ku ko xam-xam ni réew mee ko ñor ku ko xam-xam ni Sénégal la ko ñor ndax boo ko seetloo fan yëpp même buy génn di wax sax da ngay koy seet ci image am xam ne président tey xam na ni réew mi am na fu mu toll ñuy wax na suñ sëriñ si ñu ñaan ndax ñun ay jullit lañ loolu daal lañ ci amoon xalaat di wax président mu gestule Sénégal de l'extérieur yi vraiment métti na c'est très dur parce que ñi ngi ci kër yi te ñi ngi wax sax. parce que tey am na fi ñoo xamante ñi ngi fii seeni i jeex na ñu war a dellu tey boo demee Italie la juróom-ñetti koor a nga fa ay sénégalais ñuy ñaan président mu jàpp ci pour koor yooyu del si seen njaboot gis ko parce que fan yëpp ñu ñu koy laaj di ko laaj association yi di ko laaj daayira yi kon ñi ngi ñaan président de la république mu gestuwaat diaspora bi comme ni mu taxawee ci réew mi. amul kenn koo xamante ni sax amoon nga ci feebar. virina coronavirus bi amu ci. kenn ki da am doom. bi muy am doom maman yooyu fekk Italie xam nga Europe actuellement ni mu demee parce que corona bi moo tax lu bari talatuñ ko tey ña fa am diabète am fa cancer am fa lépp fii ne boo demee ñoom ñoo gën a sonn ñu am coronavirus bi parce que dañoo fàtte lépp soxna si bi muy am doom maman yooyu ambulance bi waroon koo jël si jël siwu ko mu pikk crise ci loolu la ñàkk bakkanam may wax sa mbokk journaliste ñu dimbali ñu rek di ñu traité suñu information yi comme s'il le faut parce que ñun ay sénégalais lañu nee naa la on met mille trois cent milliards par at ca bokkut ak li ñuy dugal ci douane bi bokkut ak li ñuy fay suñu kër yi impôt domaine kon loolu rek laa la di doon wax ma xamante ni sénégalais yooyu fi gaañu amu ci kenn koo xamante ni gaañu nga ci coronavirus.